témoins yi asalaamaaleykum ñu ngi leen di sant di leen gërëm am mbégte bu baax a baax ak contentement bu mag a mag toogaat fii fas yéene waxtaan ak yéen biir émission témoin le témoin comme ni ñu koy faral di defee saa su nekk chaque fois ñu benn invité boo xamante ne nii euh, dafay soxal nag ay leeral mu indi leeral ak gindi askan bi nga xamante ne nii mooy askanu Sénégal tey nag ki ñu ci am invité kenn dootu ko présenté donc c'est professeur de profession ba pare aussi nekk responsable politique bu mag nekk biir APR. Euh, muy aadama Fall kenn dootu ko présenté ci milieu médiatique rawatina ci politique bu Sénégal nit ñi ràññee nañ ko xamee nañ ko bu baax. tey moo nekk suñu gan ci ñetteelu émission bi nga xamante ne mooy le témoin fii ci biir témoin TV mbokk yi dal leen ak jàmm gannaaw bi ñu leen nuyoo. maa ngi koy nuyoo aadama maa ngi lay nuyu di la di la fay di remercier sa wuy si bi nga xam ne wuy si nga ñu. ñu ngi lay ziar di la jox sa wàccuwaay di nuyu mbokki internet yi nga xam ne ñooñu safoo di seetaan euh, le témoin TV. Mm-hmm. témoin nag mooy loo fekkee dafay am solo soo leen di dalal nit ñi ñuy ñëw toog ci seen plateau di waxtaan ak nit ñi ñuy waxtaan lu ñu fekkee parce que nit loo fekkee rek mënoo ci wax donc le le le titre de la de, la télé est un bon titre le témoin le témoin donc euh, di leen di rafetlu liggéey bi nga xam ne koy def dans l' espace médiatique du nuyu seen internautes yëpp mm-hmm. ok merci comme euh, ni ngeen ko déggee dañuy fas yéene waxtaanee tey faram-fàccee actualité politique bi nga xamante ne am na ci réew mi waaye actualité boo xamante ne nii xew la boo xam ne am na sur le plan euh, sur le plan politique comme aussi tamit ci yeneen ci yeneen ci yeneen domaines yi mais tey li ci gën a am solo balaa ñoo dugg ci xuus dañuy def benn benn benn benn benn résumé bu ndaw bi nga xamante ne jotoon na fi am moom Adama Fall mooy vide déclaration bu mu defoon ci benn vidéo ngeen seetaan ko ñun ñëpp mu tas un partout à travers le monde quelque temps ñu déggaat aussi tamit euh, que ni moom euh, léegi delluwaat na këram donc tey nag comme dañu nekk ci émission témoin forcément que gisee nañ waxtaan nañ trouvé duñ terrain ñu bëgg a xam euh, waxtaan bi ak gise bi tey lan moo waral loolu. <laughs> c'est vrai que loolu témoin mooy loo fekkee. loo fekkee euh, d'abord damay remercier ni euh, nga xam ni. Mm-hmm. ba situation bi amee yëkkati nañ ci ay kàddu. Mm-hmm. yëkkati ay téléphone wala sol seeni dàll ñëw. Mm-hmm. ma jukki ci ay nit. parce que aussi lu ci ne rek dafa am ay nit yu ci dox. waxuma la nag ñu yëkkat seen téléphone wax ak man mais dafa am ñoo xamante ni dañ ci sol seen dàll muy Thérèse Faye administratrice général di nekkoon ancien sama di sama marraine doom mu dox ci ñetti yoon ñëw sama biir kër wax ak man muy Lat le directeur général de l'ONAS xamuma ko mu suñu seq relation mais vu son engagement aux côté du président mu sol ci dàllam ñëw ñetti yoon sama kër ak Mansour Faye Euh, le ministre su Faye maire de Saint-Louis mënoon na wax ni Dakar laay militer mais moom Saint-Louis la mais dafa gis engagement bi ma am ak président ci au côté du président mu ne kii waruñu ko ñàkk mu daw si ñëw toog waxtaan ak man ñooñu sol nañ seen dàll ñëw waxtaan ak man ñaan ma njekk Cheikh Ahmed Tidiane Ba sol na ay dàllam ñëw dëkk sama kër sax daanaka ñaan ma njekk jeunesse su département de Dakar. Mhm. def mobilisation cinquante jeunes ñëw sama kër. Mhm. sukk ñaan ma njekk. Mhm. au-delà de ces gens qui se sont déplacés. ak les autorités qui ont pris leur téléphone. te mënuñu leen lim parce que suñu leen limee day bari. du dëgg ñu jël ci tête de liste nationale bi di Mimi Touré Aminata Touré. jël ci ministre directeur de cabinet du président de la République Mahmoud Saleh. Mahmoud Saleh euh, Augustin donc kilifa gi nekk ci république bi yëpp yëpp bi ci gën a tuuti ak ki ci gën a mag yëkkati nga sa téléphone nga woo ma wax ma ne lii ngay def danga yaakaar ni parti bi amoo ci cër mais am nga ci cër parce que am na ñeneen ñoo xamante ne démissionné nañ ci parti bi te kenn defalul leen bi parce que fonk nañ sa taxawaay ak nangam sangam mu am des personnes yoo xamante ni euh, kenn xamu leen dans l' espace mmh. ñu sol ci seen dàll ma am ci ay xarit yu bokk opposition ñoom it ñu sol ci seen dàll pour ma dellu sama kër tu vois le effectivement donc euh, muy benn maani bi nekk France parce que France un fervent attaquant du président mais il ma di jàmbaar di nga taxawee du noonu yaayaa doomu Pikine bu bu bu Pikine il ma di ni nga taxawee du noonu xam nga donc des gens qui sont connus dans l'espace euh, réseaux sociaux mhm. donc ñoo xamante ni dañuy sànni xeer président dañuy attaquer président ma posé acte boobu ñu ne ma juum nga. Mhm. parce que sa sa kër mooy alliance pour la république. Mhm. léegi Médina xewle. Mhm. mu am lu rëy loo xamante ne am nañ Médina jeunesse su Médina bi taxaw fa plus de mille personnes. ñëw taxaw ne dañ la soxla bul dem. d'ailleurs sooy seetlu déclaration boobu ca activité boobu laa ko waxee. mu am lu déclenché loolu. Mansour. Faye Mahmoud Sall kii euh, Lat Diop. Thérèse ak kilifa yooyu ak jeunesse bi dafa am loo xamante ne nag ñoom ñoo ko moom ci man. effectivement parce que su ma mayewul dara suba suma ñaanee nit du ma may. Mhm. parce que mënoon naa taxaw ne man benn interlocuteur te effectivement dans ce parti benn interlocuteur laa ci am muy Macky Sall. Mhm. benn leader laa ci am muy le président de la République Macky Sall ci beneen leader. Mhm. am naa ci nag ay xarit. am naa ci ñoo xam ne mais ci biir loolu danga taxaw wax ne yow bëgg soxla buggoo gis Macky Sall. décision say engagement la. xam nga lu tax. parce que doxuma pour gis ko. d'accord je ne cherche pas à voir le président. Mhm. je ne cherche pas à rencontrer les autorités parce que man aadama Fall. Mhm. soo leen demee biir ngeen xool bureau archive bu présidence doo fa gis sama courrier. déedéet. soo leen demee bureau ministre yi doo leen fa gis sama tur. Mhm. muy taxaw di saal salle d'audience. soo leen demee bureau directeur généraux yi doo leen ci gis sama tur ci salle ci salle ci ci ci liste. mais lan moo waral taxawaay boobu. sa taxawaay xamu tax man damaa gëm ni. ñoom ñëpp ku ci nekk mën naa def ak yow passation de service. parce que yàlla may na ma compétence bi. Mm-hmm. man na ma taxawaay bi. donc du ma wër bureau kenn di ko wax sama soxla mm-hmm. man yàlla laay dee suma soxlaa. Mm-hmm. mu ma koy faja du dëgg parce que dañ noonu lañ ma yare yarew ñu ma may wër ci bureau naan defal leen ma lii wala yarew ma ñu may wër ci bureau naan dama am problème bii warew ñu ma may may may parce que sama engagement au côté du président de la République n'est pas basé sur des postes de responsabilité des des strapontins et des prébendes loolu man je suis militant bokk naa ci parti bokk ci opposition nekkoon mandataire dekkal ngor 2009 nekkoon tête de liste majoritaire 2009 di xeexal parti bi ba parti bi accéder au pouvoir damaa war a def sama rôle ma mission c'est de protéger et de défendre ce parti là c'était ma mission sama mission maa ngi koy dox ñoom ñoo waroon dox seen mission par rapport à moi parce que ku ci ne rek da am mission booy dox maintenant sooy dox mission doo wër doo ko tal sooy dox mission pour parce que attaques yi day jóge fu ne jóge ci président. da ñoom ñoom ñoom da jàpp ne doxuñ seen mission. non c'est-à-dire ndeysaan am na kilifa yu bari dañ ma wax. ne ma billaahi ba ñuy toog suñuy toog ci plateau yi di la gis ngay def dañuy yaakaar ne am nga décret. Mm-hmm. te xamuñu ni. Mm-hmm. engagement boobu tegul ci ay décret mm-hmm. tegul ci ay ndomba tànk tegul ci ay leneen engagement bi c'est un militant qui doit protéger un homme boo xamante ni gëm nga ko. ànd ak moom dimb ànd ak moom tey gis ni attaques yi day jóge partout au niveau de l' opposition. Mm-hmm. sama cër est ce que damay xaar pour ñu jox ma ndomb tànk pour ma défendre ko su boobaa je suis un mauvais militant. Mm-hmm. est ce que damay xaar ñu sant ma. Mm-hmm. ma defaan ko pour mu def ko. su boobaa je suis un mauvais militant je dois demeurer un militant engagé cet homme là. surtout que cet homme est en train de faire d' excellentes choses pour ce pays là mais malheureusement. nit ñi gis am na am na ay parti ay sénégalais yu gisee ko noonu gisee di ko gisewul noonu bëgg ñëw xajamal li ñuy def ñun li ñu war a def mooy taxaw ci maintenant suñ ci taxawee ba pare dafa am yaa ce qu'on appelle la reconnaissance mm-hmm. la reconnaissance mooy ñu yëkkati téléphone ne la ah jàmbaar félicitation li ngay def rafetlu nañ ko du dëgg mm-hmm. jàmbaar taxawaay bi rafet na mm-hmm. parce que nag waaw góor day tax nga nekk góor waaw góor day yàq jom jërëjëf day tax nga yokk yi jëf mais soo déggul jërëjëf yëg déggoo waagoo déggoo leneen dafay mel ni faalew la ña toppataw ñu la dañ lay ñàkkal fayda loolu moo taxoon malgré les frustrations yu amoon des des tentatives d'humiliation yu am ngay ñëw di bokk ci parti ñuy jël ay nit di ko teg sa bopp te alors que bi xeex jotee yaa ngi doon xeex moom laa la wax alors que ba cooki jotee defante jotee ñu ngi taxaw di jàkkaarloog ñi nga xam ni tey dañuy tey tey tey ñu ngi jàkkaarloog président Macky te duñu ci xaar ci kenn en terme de ratio. ñiy wax ci biir alliance pour la république yëpp. amul kenn en terme de ratio je le premier. parce que amul plateau télé bu ma toogul excepté bii te toog naa ca tey. amul plateau bu ma toogul défendre le président Macky Sall excepté le témoin te toog naa ci tey. te témoin bi am na kilifa yu mag yoo xamante ne xamuñu leen dans la république mosu ñu fi toog. dëgg la. tey am na ñoo xamante ni ñu ngi nekk dans l' espace gouvernemental. Mhm. wala nekk directeur général. Mhm. man la ñu gën a xam que ñoom. parce que yow yaa gën a am accès ci média. man moom la très bien parce que tout le euh, temps maay monter au créneau. Mhm. xaaruma ñu fal pour loolu. pour am loolu. am na ñoo xamante ni nag seen engagement militant mi ngi tegu ci nomination domb tànk. man sama engagement le militant taxawul loolu. moi je fais de la politique moi je la politique. mais c' pas la politique dama faire. ok ni nga ko expliqué nii bu fekkoon ne ci njëlbeen bi réagiré woon amoon nga réaction bi ou def sa vidéo bañ a def sa vidéo publier ko euh, di ci jot a xew ab yu demee xam nga xam nga jàpp woon ni di nga di nga trouver solution su ma defaloon lii waaw retour bi du am parce que depuis 2012 jusqu'à présent maa ci média doo gis ko la ci tàccu ne la waaw góor mais loolu jàppoon na humiliation la mais bu non attends li xew humiliation bi gën a bon ah. euh, sëñ bi mm-hmm. humiliation bi gën a garaaw mooy yow nga teg sa bopp ndeke tekki nga dara ci parti nga dem nga dem ay garde corps la te taxawal ça frustre humiliation bi gën a graaw mooy ñuy defar liste pour le compte de ton de ta coalition nga xeex xeex xeex ba taxaw ñu jël un transhumant teg ko sa koo bopp na ne du yow doo dugg sax munoo ko nekk humiliation bi gën a bon mooy nga nga jël ndomba tànk nga nga dalal nit ci parti nga dalal nit ci parti bi en jiitu ko ci mouvement des enseignants gën ko ci xeex gën ko ci taxaw ëpp ci mbooloo ci met jàng si ñu jël ko teg ko sa kaw bopp tax parce que ci parti bi amuma ci bàjjen amuma ci nijaay te dañoo nekk ci parti boo xamante ni soo amul bàjjen amoo nijaay doo am doo doo dem dañ lay piétiner dañoo nekk ci parti boo xam ne ak coalition boo xamante ni soo ci su su su nekkee rafetoo taaruwoo da ngay jigéen amoo ci bàjjen doo dem que man nag ba may damay doomu aadama boo xamante ni du ma wax kenn sama soxla mm. du ma dem di markaatu kenn yaakaar naa ne du ma am que man nag dama taxaw ne Macky Sall mooy sama kilifa keneen sama kilifa mm-hmm. yaakaar naa ne du am mm-hmm. parce que nag ba may dugg ci biir parti bi kenn dalalu ma nag mm-hmm. kenn moo tax ma dugg ci biir parti bi muy la président de la République donc duma militant kenn benn leader laa am mooy le président Macky Sall ba ngay dégg coow sax nee naa la politique mënatuma ci am leader su ma demee bay génn di bàyyi politique damay nekk sama kilifay bopp. kilifte ku dul le président de la République Macky Sall. donc taxawaay boobu laa am. mais attends. ni nga xam ni maa ngi ñoom ñoo sosandoo parti bi deux mille dou deux mille deux mille huit ba ak si fii. ñooñu ñooy jël ñoo lay ñoo lay piétiner parce que dañuy bëgg nga nekk sa booy man duma booy kenn. mais léegi euh, beneen côté bi mooy askan bi nga xamante ne bi nga defee déclaration bi gisoon nañu succès bi mu am euh, ci ay ci ci ci gars yi di Twitter fu nekk di la féliciter ci engagement boobu nga amoon et puis ak franc bi vraiment nga dem ba jot ci sax xotti photo et tout ça nga gis benn jeunesse bi benn camp bi di la ci encourager donc tey suñu déggee loolu. waaw beneen camp bi ma ci doon encourager. waaw waaw c'est cette position là bi ma doon saaga démb. Mm-hmm. ba ma defee acte boobu. Mm-hmm. ni ma ci doon encourager yëpp c'est l'opposition bi ma doon saaga démb. Mm-hmm. tey su seen pexe jugoon mhm. suñu sañoon mooy damay ñëw ànd ak ñoom. Mhm. mooy mhm. mooy ma jóge ma génn carrément dem. mais loolu su amee mais attends damay ñàkk ñaari mbir mooy man mi taxawoon doon wax Macky moo fi gën damay wëlbati su woon ne Macky Sall baaxul je perds ma crédibilité parce que su may doom suñ ma déggee dinañ na xeeb du dëgg man mi taxawoon doon xeex ak opposition bi damay génn taxaw di tagg opposition bi damay renier wu du dëgg maintenant nag li nga xam ne mooy je suis dans mooy li ma Amadou Sylla Diop un responsable de Aar Sénégal bu ma ne tu es sur ta ligne le fait de retourner dans ton parti c'est dans ligne te mun naa la tegal ojo bi nga déglu mu ne ma sur sur sa ligne parce que loolu lañ la xamee saaga démb doon ma tagg ba ma génnee ñoo continuer di ma saaga ñi ma doon vaar démb doon continuer di ma vaar ñoo continuer tey di ma vaar naa nag su ma ko sama parti defoon mu metti mais j'ai fait un parce que bind naa ko sama sama toile. man mosuma woon xam ni dafa am ñoo xamante ne ñu woon ma ñibbisee te ñu ngi biir bi alliance pour la république. billaahi. ah mais bien sûr. musu am na ñoo xamante ni nekkee musu ñoo bëgg ma ñibbisi. te ñu ngi ci biir parti bi. lu tax da leen di déranger wala. mais attends loolu lay niru. parce que ba ma defee déclaration dellu si. Mhm. ay nit nekk ci biir APR ñoo ma doon vaar man. Comment peux-tu imaginer ça Des amis de l'opposition qui m'applaudissent, mon parti qui me des militants du parti certains sax ay posodo la ñu ah, pour man pour man ils sont à la merci de certains de quelqu'un ñoo ma doon ñoo ma doon rappeler mes déclarations donc ça veut dire ñibbisi boobu may ñibbisi ne les arrange pas te te te wallaahi du leen arranger xamu tax dam leen di déranger puisque dama leen di déranger xam nga lu tax ma leen déranger. mais noo leen di déranger xam nga lu tax ma leen déranger amuloo amuloo décret. non leen déranger. Mm-hmm. dama leen suuluwee kër gi maa ko moom. muy alliance ma dalal leen suuluwe leen nekk. Mm-hmm. ñu bëgg ma génn kër gi pour ñu hériter kër gi. Mm-hmm. aw ma décret. mais maa leen gën a visible le plan médiatique. ah parce que yaay dem ci débat plat aw ma man la ñu gën a xam au niveau national. aw ma ndomba tànk man la Sénégalais yi gën a déglu. parce que nag ça fait rare un homme politique bi nga xam ni amul décret amul ndomb tànk démissionné presse bi traité ko nu mu ko traité d'habitude des ministre des DG des députés yu démissionné lañuy defal defal traitement bii mais un simple militant qui est un simple fonctionnaire quelque part def démission bii mu def taux bii ci biir biir Sénégal. mais mais nag ak façon de démission bi parce que dem nga ci ba jooy sax def ci vidéo yi. xam nga lu tax sa xol fees. xam nga lu tax waaw xol bi xol bi fees xam nga tax xam nga bi mooy li ma gën a bëgg laay bàyyi. Mhm. et ça fait ça fait très mal. Mhm. ce que je que j'étais en de faire. Mhm. ça fait très mal lañ ma def ca biir parti ba parce que li tax ma ma ma jógee ca kër ga. ca permanence ba ñibbisi sama kër. ci activité boo xamante ne man maa ko organiser man. Mhm. jaaxlu leen. Mhm. man maa concevoir mhm. bind réfléchir defar yónnee ki nga xam ne moo ma ko te mu jiite jàngalekat yi. yónnee ko di ci waxtaan ak moom ba ci biir bës ba. di ci waxtaan ak moom war a dem ca moom. la fa am am fa. mu am muy guddoo bu fi nga xam ne moo tax vase bi débordé wul ma dellu si ñëw taxaw parce que loolu loolu c'est de mooy sama dignité la ñu bëggoon bafoué maintenant. sama dignité nag maa ko moom. effectivement. bañ ma ko delloowee mooy. waaw xëccoo bi bari na. yéen ñaar piijoo mbaayoo bi bëri na. mais yow yàlla def na am nga loo yoroon. te kenn tegu la ko. yow yaa ko créel sa bopp. maanaam muy serment maa ko créel sama bopp créé ko le 6 février 2018. muy collectif des enseignants pour la réussite de Macky. ma créé ko woon en 2018. le 6 avril le 6 février 2018. lancé ko au niveau national wër ci Sénégal ñaari yoon. mais loolu laa loolu loolu lañ ma jox rek pour ma doxal dootuma xëccoo kenn. Mhm. parce que loolu maa ko moom. Mhm. du dëgg. Mhm. APR moomu ko. keneen ak keneen moomu ko loolu maa ko moom. ànd ceeg ay jàngalekat. parce que puisque problème bi ànd na entre koo xamante ni maa ko gën a populaire. maa ko gën a taxaw. ca taaram la jaar pour falu. du dëgg. ca ca lobbyam ak ay bàjjanam ak i nijaayam la jaar pour falu. ak loo xamante ni man maa am légitimité bi parce que jàngalekat yi ñoo ma teg ca bopp ba bokkul. que nag xëccoo boobu am na damay lañ ko dama koy bàyyi dañ dañ dañ ma ne mën naa ko bàyyeek li moom man ma doxal ak li ma moom na naa ko bàyyeek fi ñu ko teg parce que loolu moomu ko moo ko dañ ko teg mais am na ay motivation quand non amul ay motivation a y a aucune motivation y a mm-hmm. parce naa la du alal moomay tax di daw mm-hmm. du du poste moom a tax di daw. Mm-hmm. du leneen ak leneen. moom mais Macky su la woo ne la kaay ma nommé la quelque part di nga di nga dem. su nekkee samay compétence la. non sa compétence kay moo tax ñuy wax. waaw mais attends su yëkkatee ndomba tànk jox ma. ma jël su ko yëkkatiwul jox. su ma ko joxul tamit du du tere ma ma continuer def li may def. parce que ba li may def dama ko doon def te ndomba tànk amul. xeex bi ma doon xeex. Mhm. contre ces vampires de l'opposition. Mhm. qui veulent sucer le sang sénégalais. Mhm. xaaruma ci woon ndomba tànk. n'est-ce pas donc xaaruma ci loolu nag donc puisque xaaruma ci ndomba tànk saa yi nag tamit man day ma tànk taxumaa jóg de